asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waaw waxtaan wi nga xam ne moom la mbokk mi di expliqué ci émission bi ñu doon def xam nga xaanuun maanaam luwa ate ñi ko jàng ba xam ko ñoom rek ñoo mën a xam poqatal ya fa nekk ak làqatukaay ya fa nekk ak ëkk yi ca nekk ak pakk yañ cay yañ cay def ñoom rek ñoom ñoo ko xam waaye li mu wax ne fii ba déwén élection mën na fee bañ a am loolu mooy dëgg fii ba déwén élection mën na fee bañ a am waaye nag boo ko waxee nit ñi duñu ko setantal Ah, la ma leen waxoon ca njël beenu palug Macky Sall ga ba leen waxee ne Macky Sall ki juróom-ñaari at lay toog ah, am na ñu gëmoon am na ñu weddi mais bañ demee ba ca ba ca biir bañ demee ba ca biir Macky Sall lu mu toog di juróom-ñaari at la toog. Ah, dafa am yoo xam ne ci loi ay galgal yu dul jeex du xaaj la waaye ba ma ko waxee nit ñi dañ maa weddi mais lii nii li ma ci xam ñi mu ma ko wax ndax nit ki bu fekkente ni dafa la bëgg a nekk ci ay njuj ngaaj ak i tappale te nekk ci barab boo xam ne bii mënoo xam ca la mu ne teew fi nga nekk loo xëy mbaa gonte xam na ko danga koy moytandiku waaye ah am na yu bari yoo xam ne yii doo ko wax dangay noppi rek xam li nga xam ni ñi di coore nga noppi waaye ba nga xamee ne Macky Sall eh, nee nañu yéeg na ñoo dañuy def référendum dama leen a waxoon ne bu ngeen defee référendum indi senegal gu yees te xas na giñ ci ab constitution boo xam ne jox na ko droit ci juróom-ñaari at ngay toog te giñ na ko ci kanam nit ñi ñëpp nee na lii ne ci téere bi dinaa ko def bu deful loolu yoon dal ci kawam ndax moom moo giñ ci ne constitution bi li ci nekk dinaa ko def te mooy constitution bi laa ba mu giñewoon ba mu leen di wax ne damay wàññi sama mandat damay may sama mandat mënut a wàññi mandat lii ngeen di wax naan ku mënut a wàññi mënoo yokk d'accord ku munta wàññi munoo yokk waaye def ko de def ko saa yoo ko mënee kay <laughs> saa yu ko mënee la koy def waaw day def day def élection saa yu ko mënee xam nga euh, bu ñu parti parti profitigo daal di mool gaa yi jox nañ seeni trente millions trente millions trente millions trente millions ñoom daal di nañu euh, profité mool ay këyit daal di koy date ci date élection bi te fasuñu ko ci yéene def waaw bu foomee coole comboy ñee léegi lu fi xej dafa am ay problème yu tax mënuñu ko def léegi nañ ko bàyyi ba saa saa saa saa saa yu ko mënee def ah waaw buñ ne léegi nañ toxal date bi ñi nañ toxal date bi waaw buñ toxalee date bi te këyit yi xasu ne bind date woon nañ ko ci ba noppi këyit yooyu day dañ koy connecté ci caaf mairie yaaykati caaf yi dañ koy jox a ah, buñ li ko joxul kuñ koy jox date nañ ko ci bisu élection bi ba noppi ran nañ élection bi est-ce que yow imprimerie bi nga demoon fay ko mu tàppe la kayit yooyu ba jafal la ko ay million kayit jalal la ko da ngay dem ne ko date bi ma ci defoon baaxut nañ ko reprendre à zéro nga defaraat nga defaraat lu toll ni lii nga defaroon te du ma la fay xam nga imprimerie bi du ko nangu waa boo ne li ma jot na dajale def naa ko ci kayit yi ba noppi date nañ ko nag ñu ne nga defaraat yeneen waa amaguma xaalis kenn nga am xaalis bis te déwén bi xanaa buñ ko watee ndax budget ren bi dañ ko wate woon wate waale ci problème dépense dépense yi dépense wate bi xas déjà le coût de ça passé muul nañ kii ti ba noppi def nañ ci dat bi date bi remplacé sensé nañ ko ah léegi ginnaaw sensé nañ ko léegi kon kayit yi mënatu la baax léegi lu ñuy def a ah, dañu war a moolaati kayit ah mu ana moolaati kayit a ah, budget ren bi kat ci lañ ko defoon budget ren bi dañ cee dañ cee watewaale woon dépense yi dépensé wate bi waaw kon kañ la ñuy amaat budget ah xanaa bu ñu watee budget bi loolu moo ko dinaa fi toog bu déen <coughs> après naa fi toog bu waaye yooyu yëpp ngay gis doo ko leeral nit ñi da ngay noppi da ngay noppi tax tax da ngay noppi mooy soo ko leeralee dañuy dal sa kaw di coow te yow yaa wax dëgg fii ba déwén bu ko neexee du def dara dul def lu muy def wateel ngeen ko budget ren député yi wate nañ ko boolewaale nañ ci dépasse yi nga xam ne moo di dépassé wate bi ah ñu ne léegi dañuy wate duggi nañ diggoom wate ba teg ko ba togg nañ ko ba yekk ba lekk rekk des ñu ne tey mënu duñ ko mën a lekk ak kan lañ ko mën a lekk ak ah, yàlla xam mënut a yegg booba ah yéen a xam bu seen togg forxa ak këpp leen ko ah léegi at diggaat bu bees kan la ñu mën a déwén ndax déwén ca la déwén la ñu amaat <laughs> mais mais loolu loolu ku dafa ku dafa war nga mën a xam buñ ko fommee ren déwén la jëm ndax li tax déwén la jëm mooy saa yu ko man ne wax ne ci la koy def waaw bu fekkente ni bala ko man ñu jox ko budget te budget ren bi wate woon nañ ko ba móol kayiti ba noppi léegi budget boobu ñu mootoon móol kayiti daat ba yàq yàq nañ ko kan la ñuy wataat budget déwén kon kay wate bi déwén la jëm waaye loolu doo ko wax nit ñi soo ko waxee nit ñi col ne comboy am réew dina egg foo xam ne la koy résoudre soo ko waxee dem kaso ba da ngay man de gisuma fu ñu fi mën a watee fii ak déwén gisuma ko de te waxoon naa leen ci njëlbeenu palga ne leen gisuma fu ngeen mën a fexe ba du toog juróom-ñaari at te gisuma fu mën a def ba du toog juróom at te beneen point gi ci biir boo xam ne maa ngi ko xam mais maa ngi noppi deuxième euh, maanaam Sénégal gu bees gi Macky Sall tabax nga xam ne mi ngi ko tabax gannaaw référendum Mm, def constitution constitution bu ñaari manda cinq cinq ans mais waat na ko waat na ne dina waat na ne dina def li nekk ci affaire bi mais ñoom ba tey dese nañ fu ñu leen mën a maanaam ba tey ñoom dese nañ buntab jaarukaayu tappale loolu moom bu ko sax xalaat waxuma la benn at de mais di ñoqale di ñoqale ba mu nekk atam mandat sax am mandat sax bàyyi nañ bunt boobu noonu mais ku xamul droit doo doo ko xam am na ci yoo xam ne yi moom ah, yàlla rek moo nu ci mën a génnee yàlla rek moo nu ci mën a génnee ndax nit ki li nga bëgg soo ko amee ba noppi jëratul ngay sonn bu ñuy génne xale yi sànni ci biti kay war ngeen a xalaat di tax ñuy génne xale yi sànni ci biti a ah, fexe nañ ba muul nañ kayit di ñu war a watee ba noppi muul nañ kayit di ñu war ba noppi date nañ ko ci bis ba ñu war a watee fexe nañ ba fomm liñ moo la kayiti budget la budget bi dañ koo wate ku ko wate ata assemblée ko wate kañ la ko wate woon da ko wate da ko wate woon pour atum ren mii kañ la assemblée di waat bi kañ la assemblée di wate di wate waat budget kon kay mooy wate bi déwén la jëm ndax foo jële kayit yoo wate def ko saa yoo ko mënee déwén laa ko mën bu ko constitution ne def constitutionnel ne def ko saa yoo ko mënee mu ne ah budget ren bi kat déjà duggoon nañ ko ay kayit ba noppi kon déwén la budget bi jëm kon wate bi déwén la jëm xam nga nitu àddina yi dafa am lu ñuy jëfandikoo loo xam ne day mel ni théâtre ci ñi ko xam day mel ni théâtre ci ñi ko xam xëy na ñi ko réere ñoom dañ koy réere rek waaye dafay dafay mel ni théâtre ci ñi ko xam xam nga bu njëkk ca jamono ju yàggoon ja diggante Sandaga Tilleen jamono jooj nga xam ne rapide ñi ngay daw foofu ay ñi ngi daw foofu ak ak li ñuy wax super galion xam nga super galion moo njëkk moo njëkk sax super ronal yii waaye jajooja jamono Sénégal boobu nekk ci boori Tilène xale yi way yii dañ daan taxaw foofu di xeex xeex boo xam ne ñaari nit di xeex di mbëkkante di dóorante di bëgg naa waaye jàppale ñi dañu rente waaye jàppale ñi dañu rente te fekk booba li ñu bëgg rek eh, ay nit dem di leen tëqalee ci dawti lawti jooju ña ca des lu ci biir atte ba sàccaale ña ca seen yoon nekkul seen alal sàccaale ñay atte ngir bëgg lu baax sàccaale seen alal ba sénégalais yi dem ba nànd ko nag bu ñu gisatee ñaari xale yu góor xeex am ñu toog fee di seetaan ak a tàcc ñu ne ba leen leen ñu xeex ndax ñi boo leen ci may atte ñee di tàcc dañuy ñëw bokk ci atte bi te bu ñu bokkee ci atte bi yow miy atte te doo te bokkoo ci yow la ñuy fuyee say poos sàcc la loolu xale yi daan nañ ko def loolu ba léegi mooy dox ci àddina bi ba fii nu toll moom laa day doxal léeg nga gis ñaar ñuy xojante ka mbëkkante nga ne ñi ay noon la ñu fekk yow dafa am ak dafa am complice gu ñuy nëbb dafa am complice gu ñuy nëbb di xeex-xeex ab kaw nii di wane ne ay noon lañu xam nga géej <laughs> naa leen indil xibaar te bëgguma leen a mosal xibaar sëñ Abdou Latif ne il faut nga wax waaye xam nga Iran américain yi dañ koo wax ne yow li waaye man di def yaa leen koy sant iraadi waat wàcc ci ne moom santul leen ko waaye man ci seen disposition dañuy defee li ñuy def waaye ilif leen ilif gu toll ni bu leen teree ñu bàyyi mbaamu mu leen ñu def américain ne ko loolu du dëgg li ñuy def ni yaa leen ko sant yaa yaa ko planté ndax armée yu sophistiqué yi ñu yore yaa ko defar léegi am benn bateau iranien bu jóge ci côté canal de Suez romb ci babul mandab war dem ca fa ñuy wax bandar xumeyn tubaab yi koy tubaab yi koy eh, nettali sax dañuy wax bandar imaamul xumeyn yi waaye déedéet bandar xumeyn <laughs> ab ab quartier maam ab région ab gox la ca Iran bandar xumeyn jooju ba koy tudd imaam ni sax nit ko ko fi ñëwagul àddina mu tudd Bandar Xumeyn bata baa nga doon dem Bandar Xumeyn moo na romb na Babul Mandab gaa yi dóor ko misil moom rombee Babul Mandab ba woon ko ginnaaw gaa yi dóor ko misil misil bi rek dal na ca bata ba naam waaye yàqu gu yàq gu ko teree mën a dem mu dem ba ci waax buñ ko defaree mu continuer dem yoonam léegi nag Iran ne waaw xam ngeen ne ñi koy moom su leen maa leen ilif di leen def loolu dañu bombardé sama bateau waaye am na nañu xam ne li tax mu def ko waaye man li tax ñu def ko pour saxal ne Iran wax na dëgg ñun conditionné ci conditionné wuñu ci dara loolu moo tax ñu def ko waaw na bandi yi doon def rek di xeex ñoom ñaar seeni morom toog di seetaan te ko àtte ñu sàcc la loolu mën naa dox ci diggante conseil constitutionnel ak ak ak kërin ilif ay accusation yi ñuy def ak dañ laa neexal ak dañ laa liikilaak a ah, bu ko defee dem assemblée nationale bu demee li ko nii ni naa ki naa ah, assemblée li jënti ne ko ànd na ci li kilifa gi wax ah bañ na ne na loolu defi amee ah ñi kat kon kompaloo bu ñu ñi kat kon kompaloo bu ñu ndax ñi buñ kompaloo woon kon duñu juyoo te gis nga ñi accusé nañ ñee bañee ngay kalaame ji ne lu tax ngeen accusé nu dem nañ assemblée nationale assemblée ànd naag kilifa gu mag yi yóbbu nañ koy rée ca ñee ñee d'accord yi ca kon ñi koy compliste nu ah compliste nu waaye ca biir lijjanti ba ca la compliste gane ndax benn danañ fexe ba wate bi dootu fi xej ñaar duñ mën a tere këyit diñ xasoon móol ba date ko mënatuñ ko mënatuñ ko refusé ñett bala ñoo amati këyit budget ñeent budget assemblée koy wate kañ la koy wate déwén kon kay déwén la président di mën a organiser wate bi waaye ñoom dana danañu danañu lonkoo ci seen biir mais ñi ma xante ci seen kaw ba nga ni ñi ay noon la ñu te bu te bu eggee ba termination ba egg résultat ba ñoom lay arrangé ñoom ñëpp loolu mooy bandi bandi bandi bandi tileen ya rek ñaar di xeex ñeeneen toog fee di tàccu mag mu forom bu àtte nag ñu dugg ne te dolof ci biir àtte ba sàcc la sàcc sa alal yàlla teg na ci jub teg na ci sa